cousine man damaa xiif man damaa xiif waaye man damaa xiif nag. ma ne lan man damaa xiif nag. xam nga walaal ba sonn nee naa la maa cousine loolu pour jigéen la. je ne suis pas ta cousine. kaay ba fi ma ma wax la. waaw waaw waaw. am na loo xamante ne café mu ak yow. waaw maa cousine fii Dakar doo dégg fii Dakar la. waaw waaw waaw. xamoon taawul nga. man kama maa cousine loolu jigéen lañ koy wax man du ma jigéen je suis ta nièce. waaw maa nièce man damaa xiif nag. d'accord fii dana jur fii. fii xamoo fii fan la. waaw fii fii nii fan la. fii bërëbu kii la lekkaay la. dañuy lekk waaw fii Youssou fii Youssou Ndour la. Youssou Ndour moomam fii. waaw. kon moom mooy mooy babay kii Brando. la moo tax yow nga bëgg ay door boy bi ji ruqube waaw Bira Ndour. boy bi ji ruqube waaw Bira Ndour. Bira Ndour ki yow bëgg moo di xaritam mooy Youssou Ndour. Brandour ki a bëgg baayam Youssou Ndour. tëj ko foofu nag moom lan la. fi mu ko tëj foofu. da <laughs> ngaa bëgg a lekk lek maa bëgg a lekk waaw. fii mën nga lekk saa nga fay xam nga amoo xaalis xam nga yoru dërëm. amu suuf. tey laa lay jàngale nag nga taxoon fii bopp sa bopp la. fi Ndakaaru Ndiaye jël fii bopp sa bopp la. boo amul doo lekk fii même pour faire pipi boo duggee ci kër daan damay faire pipi <laughs> il faut donner quinze francs <laughs> pour faire pipi loolu moo tax nag kaay mu la ci biir. maa ko de. kaay mu doole ci biir. waaw nañ doog nañ doog dégg nga tegal na. Mhm. gis nga boo duggee ma nga changewaat sa visage. waaw waaw yoraat pleine caméra. waaw waaw comprendre nga. d'accord d'accord si mën nañ koo teg kii. waaw waaw waaw on dit ma ñees. mais bàyyi sama bàyyi sama léegi yow bàyyi sama léegi. kaay kaay kaay kaay. waaw. Vous allez m'effrayer. Vous pleurez pourquoi Il y a quoi Qui est mort Il n'y a rien du tout. Ça va, non Ça va bien, merci. Ça va, ça va. Ça va très bien. Ça va tranquillement. C'est vous, je vais demander si ça va. <laughs> Nous sommes deux étrangers. Aimé. Ça se voit. Oui. Lui, c'est mon nièce. Tu mm. l'as adoré. Combien Je ne suis pas ta nièce, je suis ta cousine. D'accord, tu l'as adoré. même de ces doigts me parler y a quoi. li nga wax dama fort de. waa lan la bàyyi baaraam. <laughs> bu wàcc fii comme un peu de civilisation. d'accord ah ah. waa la wax leen ma seen problème ngeen bàyyi jooy bi nag. ñun xam nga ñun xam nga tànn dañuy dañoo jóge fële kii nu mu dund ñu jóge ba Thiès. ñu dëkk ñaari gaar. ñëw fi papa bu moo ñu réer. ñu koy seet daf ñoo bàyyi ak suñu yaay suñu yaay suñu yaay daa jeex ba af daa woo koŋ koŋ koŋ koŋ même bu reetaane sax day xotteeku ndax af bi ma oh, c'est touchant ça. <laughs> boo gisee xoolal buy ree sax mu doon nii bu teewul ci miir bi du am du mën a jàpp du mën a reetaan sax ndax ndax jeex sama yaay dafa jeex. abandonné def ñoo abandonné waaw léegi man j'ai compris qu'est-ce qui se passe aujourd'hui seen papa lan la lu xew. moom ñi seet seen papa la ñuy seet moo ñu réer. lii nag suñu papa daal <coughs> ñu bàyyi foofu noonu suñu papa moom ñu bàyyi foofu ñoo ngi ñun lekkuñu ba suur. naan ba maa ngi xool xoolal xool daan boo xoolee gis nga man sama xoyam vert ba bi gis nga ni mu génne. kon Thiès ngeen jógee nii di wër seen papa. waaw foofu lañ doxee ça fait six mois ñu ngi nii ñuy wër suñu papa mu ñoo fay ba gis ko. waa noppi leen. xoolal reste tranquille maa ko reste tranquille. waaw wuyu leen noppi leen toog leen toog leen ma servir leen ngeen lekk ba suur. ba pare ngeen wax toog leen ngeen wax ma kan mooy seen papa man il faut ma xam seen papa. ñun suñu papa kii ku gàtt la boo ko day gis ni moom mbaam ñi rayoon fan yële paase ñun doo teg teg paa bu vulgaire la nii. paa ah. bu gàtt te xaw a xaw xaw a waxañee. amul tur seen papa amul ñëw fii. ah sa bab la toog leen toog leen ma servir leen ngeen lekk. di ngeen dina ñëw toog leen. toog leen rek ah maa leen di jox ngeen lekk ba suur jox leen ngeen naan. toog leen bu leen dara met yéen toog leen rek. Rosa. man waaw. Eh, Didi xam nga Didi. yow sa Rosa sévère na de. ah, <laughs> ah yan yan ah. non seen papa li mu leen def xaar leen. xaar leen yow de na nga moo ko na <laughs> ah, ñii moo ko kiwis de fii mooy Cheikh Guigui. na nga moo ko kiwis ndeysaan. waaw waaw waaw. Oh. Diop Fall fii la may fekk. Diop Fall comment il peut abandonner sa femme et ses enfants comme ça. vulgaire vulgaire vulgaire. te moom nekkul de. ñun <laughs> Mbappé la. noppir ii eh, man xaw fu nekk nii damay lo xaw ma sax li may servir lan la. tibbal ci frite bu baax. ma tibb ci bi. waaw ah, yéen kay loo leen bëgg rek. avec un peu d'oignon vert papa. tante dégg nga. lépp laa leen di defal poivron. <laughs> concombre concombre. <laughs> ak sauce yaay ak tuuti sauce. demal sauce. Ah, mu. voilà. kaas waay kaas waay. wooy. xale da ngay naxanteeg moom. ah jur ay doom sànni leen ci àll bi ni abandonné seen yaay c'est irresponsable. asalaamaaleykum. ça va va ça di di lu xew. eh tu très bien arrivé bu ma ne gigi lu xew. où est Diop Fall il est où. qui s'assemble se je sais pas c'est lunette tu as porté wala c'est pare il est où. xam nga lu ma lay xamal. baal foo foo commencé am problème di làkki tubaab. Mhm. waxal ak man na olof gu si ci ma xam li ngay wax lan la. dama ani Diop Fall laa wax anamu. damaa gis Diop Fall. eh bul ma fonto vous êtes tout le temps ensemble dama bëgg nga utal ma Diop Fall indil ma ko fii. Eh, kii danda ñun kii nekk suñu baaba de. yow suñu baaba kii dafa ñaaw de. waaye yow damaa sa poon. Eh, ku jur kii faut pas fatiguer les enfants là loolu yëpp laajuma la ko ma ne Diop Fall il est où xale les enfants de Diop Fall. Diop Fall abandonné famille am ah jabaram ma ngi nii mois mu ngi koy war gisu ko du dépense du añ du du ndekk yéen lan la demal utal ma ko nga indil ma ko fii ah. utal ma ko Diop déggal. Guédié. li damaa bëgg ma be sama da ngay benn benn ci li ngay ay doomi da nga ay doomi Diop Fall la du. attends ana seen baay. tu entends par tes narines ou bien. ma ay doomi Diop Fall lañ say bakkanay dégg wala say nopp. yaa ci kan yow. mu ñu ko ba jaan. moom la ñuy tuddee. yow yaa kan yow. maa ngi ko mais kon be chèvre moom la ñu tudde euh, an seen baay yow an sa baay yow an sa baay ah man sa baay man su ma si ñu ma maa di seen baay ngi nii di oh. yéen di yéen a wax seen baay daa disparaître sa baay dem daa disparaître sa baay dafa disparaître xanaa waaye léegi an seen yaay an seen ndey yow <laughs> yow loolu eh, eh, eh, xoolal ni ngay wax ak man xoolal ni ngay ak man laa la wax lan la Ah, dama mën yaa mën damaa bëgg nga xam xool li ngay wax ak man. dama mën <laughs> yaa ma seen baay daa disparaître. yaa ma dama bëgg nga bàyyi xale yi xale yi ils ont déjà leur problème. seen baay daa disparaître seen yaay daa disparaître. gi. <laughs> waaw yaa ngi mel ne xoddu. <laughs> sa weex gën a fës. sa baay mi riir bi yóbbu ngeen seetu ko. paa bi daa mel ni menuisier moo ko defar moo ko daa mel ni yéen yéen yéen seen baay dana yéex a feeñ. Eh. seen baay dana yéex a feeñ. dama bëgg nga déglu ma. li ngeen di def tegu leen ko fen vous êtes des adultes comportez-vous comme des adultes quand on marie une femme là on a des enfants on prend ses responsabilités hmm. tu peux pas une femme et la jeter ah li ma la wax laa bëgg mu dugg sa nopp dama bëgg mu utal ma Diop Fall qui s'assemble se ressemble matin midi soir vous êtes ensemble amène-moi Diop Fall ici ah Diop Fall lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt dina ñëw yi gi man de ngeen foog ne yéen li ngeen nekkee yéen a ko tey. ay waay ah? xale yi waay. vous abandonnez vos femmes vous abandonnez vos enfants les enfants ont marché de Thiès jusqu'ici. ah. kon de sonn nañu. kii kii. tànn di di. tànn di di. naam. ñu ngi ne ndéng. ñu ngi ne bi dégg. ñibbi fan. te yàlla bi dafa dëgër mara de ñu ñibbi de. xaar leen jo Diop Fall ñëw. mais ñun suur nañu. li nga jox dara neexu ci. waaw léegi neexul man d'accord naa neexul xam naa ne ku mer moom looy lekk du neex. parce que mm. gu leen seen papa dara mënul neex. yéen a ngi dégg. Ah. su moom moo ne woon pour bu ñëwee ñu dal fa woon ci moom. c'est ah, sûr waaw laaj saar ngeen xoox woo. waaw léegi man je vais vous donner le transport. a ah. chaque fois vous avez faim. déedéet leen paas fii ma leen da ngay jël 10 000 jox sa frère 10 000. lii dafa ah? bëri dafa bëri wàññi ko dafa bëri. yow. yow dafa jël ñaari junni. waaw jox ko ñaari junni dem leen gaaw. d'accord bu leen bu leen taxawaalu ci yoon bi de. <laughs> d'accord Ndakaaru Njaay la nag. bakkan bi d'accord <laughs> yàlla na seen baay feeñ. waa ñu sa bakkan bi nooyi li nga ñu bëri waa dem. waxu bakkan bi seen baay yàlla na feeñ. seen baay xullu ba disparaître seen day disparaître noonu. tu n'as rien à dire. famille disparaître. sori l'argent sori sori waaw tàngaay mu ngi a rey fi mu toll nii. yow lay wax nii. bi nga dugal tàngaay bi eh, wax yu vulgaire yi boo ma ko waxatee de. waaw waaw xam nga fii dafa tàng. Ah. fii seetu guy fii fii du woo muy ëpp ndax <laughs> bu baax. <laughs> léegi kay sa mburu moom mu lakk na baax fi mu toll nii kay. Ah, ca ca ca ca ca ca. lan la. waaw <laughs> bëgguma lii bëggatuma lii. indi indi indi. doon maa la suuf. yaa benn. doon maa la suuf. yaa ñaar. doon maa la doon maa la suuf. dégg nga na la ñuy def. am te lii lii jën bu xat laa ciy jënd lii man am naa ñett ay muskalaf yu toll ni yéen soppeeku leen waaw man ku waxtaan ak man waay caama bul fel samay bagage de eh eh caama yow lay waxal ah? yow lan la caa quoi te balader comme ça on dirait sama enveloppe laay seet ok jin jin waxat laa si jin ak ak sobo <laughs> ganaar ganaar tes gin ca gin ganaar këf na laaj ganaar ganaar baba waaw lii kii moo ko moom deng baa bi nekk ni ci biir moom mooy sobal bi quoi yow xanaa dangaa def wala dangaa naan lu bon jël sam ambulance gàddu rek naan ma ciyee ko moom kaa ko moom lu ma leer ni convocation police lam de de nul convocation de ah dañoo xam ne fii ngay liggéey rek mu bëggoon ko joxal na ko paaw sauvage bi. waaye yéen gone yi ñoom gi ah. kes kese gi ah ko mel ne xaal. papa yaa ngi mel ne xaal nag. <laughs> am te lii nga joxal ñu ko ni jiit ni jëli kan mooy xaal. jëlal lii. waaye dégage. kii di na gànnaar. gànnaar papa yow sa loxo gudd na de. <laughs> yow ku mën a la man ngaa dem wala ma ne. <laughs> papa loxo mi demi mesure la. ay yow sa loxo di garaama siir yow yow sa bos di ñu fu ñu bàyyi ko waay na déedéetu naa Cerno Mamadi Sakko dan dan dan daadale Aminata yee yee kana yee fo frene salaba ko fien fien Youssou Ndour a mën way la ilaha illallah bi paas. suut nga ci jaayal sa taabal te bàyyi ma dégg nga yow caama caama lu tax nga nga rambax yow looy ëppal ba bàyyi lii gone yi ah. almali teel tim maa xalaat caama daa mel buy wuri ci rek. ay waay. eh. eh eh eh li nekkoon fii anamu. li nekkoon fan. li nekkoon ci enveloppe bi anamu xam nga lu mu gis nga. dafa gën a jàpp la pantawul la li nekkoon ci enveloppe bi xam nga ko xam naa ko jox ma li nekkoon ci enveloppe bi. caama eh, xam nga lu ma la bëgg a nga dal ak sa paxi bakkan ne poosi caaya man duma sa moroom dégg nga li ma la wax munu maa jël enveloppe gone yi jox ma ko ma di la ko nga naa ma li nekkoon fii. la ilaha illallah eh bu ma amatee ah. doomi géebi la. kan doomi xale yi disparaître yooyu